ci yenn ci mbir yoo xamante ni mën naa dox suñu digganteeg njariñu màggal gi ndax sëñ bi dafa daj ay coono yu bari te metti mu waxal ko boppam ni coono yi nga xamante ni moom la daj lu dul ruux bi génn ci yaram rek coono yooyu moo ko gën a tar mu daj ko ci liggéey bi nga xamante ni moom doon liggéey sallallahu alayhi wa mu ni xarajtu yowma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi sayri safar kon objectif génn bi moom génn bi moom li ko waraloon mooy liggéey bi mu doon liggéey sallallahu alayhi waaye sëñ bi loolu lépp nga gis ni muñ na ko ngir ñun dellu daal di jéggale kon keroog ba mu demee ba nga xamante ne nag xéewal bi nag liggéey bi jeex na fay bi daal di des mu tiim xéewal gi daal di yëg ni kat war naa sant ci ko defal lii ndax mbir mi kawe na njortam mu ni nawaytu sukrallahi zil jalaali min talsasin bi zikri wal xalaali mu daal di am yéene nag sant boroomam ci tudd yàlla di ko sàbbal ak ci loo xamante ni lu lu teey la maanaam lu lew te dagal mu daal di wax nag ne bu bis bi del soytee bisu bisu bisu safar bu bis bi del soytee képp koo xamante ni sama mbég sa mbéga na ma santale sama borom li ko dale ci ginaar ba ci giléem gis nga ñaari ñaari wax yii nii moom mooy définir li nga xamante ni moom mooy charte màggal gi mooy ko màggal gi ñaari wax yi ñoom ñoo koy définir ndax dafa ni bu bis bi del seetee kon bis bi moom 18 safar la kon à part 18 safar leneen lu waaye def baax na waaye da nga kaa teeroo bis bi rek waaye jëmmi màggal gi moom bis bi safar la mu ne képp koo xamante ni sama mbég sa mbégam kon sëñ bi kon kim ci woo mooy ki nga xamante ni mbëggu sëñ bi mbégam la kon képp koo xamante ni màggal nga bis bi te fekk ni mbëggu sëñ bi du sa bisit du sa day mel ni tàbbeekoo ci màggal gi mu ne na nga ma sant la suñu boroom kon cant gi suñu borom moo ko moom tax moom mooy yaay cant mu ne li ci dare ci ginaar ba ci giléem bayit bi ñu wax sànq dana la xamal ni lépp lu teey rek ñu mën kaa lekk mën kaa naan mu dagan te mu lew kon ci ga ci kon ci màggal gi kon ci màggal gi la bokk mooy lépp lu dagan rek te mu lew ndax dagan ak lew dafa am solo dafa ni bi zikri wal xalaal dagan ak lew bokkul mbir mën naa dagan te du lew mën naa lew te du dagan ci misaal buñ nee njoll ñoll li nga xamante ni moom la nit di jël di tàggal keeg seen sago loolu daganul kon loolu moom mënta dugg ci màggal gi mënta bokk ci màggal gi ndax daganul lu lewit mooy loo xamante ni tey jii mën ngaa jënd xal dagan na waaye xaalis ba nga def ay pexe ba jënd ko daganul kon ñu ci xamee ci ni kon one x bet moom màggalul ki nga xamante ni day jëf Paris ngir lam ci amit deme ko Touba loolu màggul kon lu jar moytu la naka noonu moo xam calcio la moo xam leneen leen yooyu yëpp daganul njublag nit nit njublag nit wala nga jël alalam ci lu ko neexul it alal googu daganul màggalul kon loolu it nañ ko bàyyi xel kon li ci jar a moytu li ci jar a moytu ci màggal bi bokk na ci ñu xam ni màggal ak puukare bokkul màggal ak puukure bokkul li leen wutale ñoom ñaar mooy ak cant màggal gi cant la cant ak puukure bokkul màggal gi cant la cant ak bokkul ndax ak cant suñu borom moo tax nga koy def ak cant suñu borom moo tax nga koy def te ak puukure nit ñi ñoom ñoo tax nga koy def cant suñu borom moo tax ñu koy kay def ak puukure kon nit ñi ñoom ñoo tax nga koy def kon lépp loo def ci màggal gi sàkku nit ñi gis ko ba bu ko nit ñi gisoon mu mel ni defoo ko loolu puukare la loolu ñu ñëpp nañ ko moytu loolu puukare la tudd ñëpp na ko nañ ko moytu puukare nag nangu na lu lu daganul nangu na it loo xamante ni lewul waaye jëmmi cant moom nanguwul loolu moom kon yow mi nga xamante ni dangaa jël loo xamante ni sart yooyu nekku ci daganul lewul nga def ko ci ci bis bi day mel ni puukare nga gën a nekk ci ci cant ndax cant moom nanguwul loolu kon nañ ko moytu màggal gi nag ni muy demee ñu nag nit ñee koy sikk kon màggal gi yow la yàlla ak sëriñ bi ak lan ka ciy defal nit ñi nag yoon lañ maanaam yoon la boo xamante ne da ngay jaarale ci ñoom cant gi waaye ñoom taxul ngay jëf cant gi ab yoon la ndax ñoom ngay àndal jëf cant gi soo defee say benn dafa nit ñi nga koy jox comme ab yoonu cant gi lañ waaye taxuñu ngay jëf cant gi support lañ ci misaal su ma doon ko expliquer mooy soo yoon escalier di am loo yóotu ngir jot ko escalier bi dalaa jàppale rek ngir nga jot loolu waaye sa yitte nekkul escalier yi nit ñi tamit taxawaay escalier boobu lañ taxaw ci ci màggal gi kon dañ lay jàppale ngir nga jot cant gi waaye du ñoom ñoo yoral cant gi kon jëmmi puukare gi kon lu ko ci waaye daw doyul lépp loo jëf seedeel ko sëñ bi waaye bul jëf mel ni dangaa bëgg nit ñi gis ko ngir seedeeg sa mudd wala yu ni mel loolu di ci benn beneen bi topp mooy sëñ bi de ci dundam li xam ci dundam lépp lu ko waaye di defal ba julli jot soo wéyalee loolu sëñ bi amatu ci soxla ñun ñëpp xam nañ histoire sàkket bi dégg nañ ko déggati ko ak leneen ak leneen waaye ci li ko gën a jege rek ci xis na mu sëñ bi keroog bi muy dem bi ñu koy denc bi nga xamante ne denc nañ ko ba nga xam ne desul lu marmaral nga xamante ni li des ci denc bariwul dañoo salaatu mag ñi foofu lañu bàyyi denc bi dem julli ji ba ñëw doogu ñëw àggale denc bi xam nga ñooñu ñu xam sëñ Tuubaa leen ñooñu moom ndax ña fa nekkoon ñëpp ñu am ngërëm leen sëñ Basiiru sëñ Fàllu man Cerno sëñ Daam Abdourahmane Lo sëñ Lamine sëñ Moon Lamine Gay sëñ Baara Gay donc ñooñu ñëpp ñoo ngi woon ci denc bi dañoo ñëpp ñu xam sëñ bi leen ñu am bër ngërëm leen kon ñooñu loolu ñu def kon dañ leen ci roy ba nga xamante ni bu waxtu jotee danañ xool nu ñu organiser woo suñu biir ndax la fa nekkit ab liggéey la boo xamante ni laajul woon ginnaaw bu yàgg mais nañu xool nu ñu organiser wu suñu biir ba ñu mën a dem jooxali waxtu bi ñëw te duñu yàqal leen li topp mooy loo xamante ne war nañ kaa bàyyi xel ci màggal gi en fait depuis quatre ans jàpp trois ans moo ngi bu màggal dugg see daam ñoo xamante ne dañuy xaar ne nañu ab single ngir waajale ko safar bi nga xamante ni ay at a ngi nii loolu moom moo ngi am day mel ni ñàkk xam si droit moom fii la fii la mën a yam ñu ñu jéggal ñu ko amaan na ñeneen ñoo xamante nag ci wet gi ñoom yàgg nañ ko def mooy jig rawat na bokk soxna yi bu ñuy dem dañuy wàcc ci meesu wala teg jërëfaat ak yu ni mel yii yëpp yu jar yu jar moytu la bu fekkee ñaar ñii nga xamante ne kenn ki ab singal lay xaar wala kii meesu ak yu ni mel ngir dem màggal damaa jàpp ni li olof doon wax naan yedd yërëmu ko gën moom da di dal ndax day mel ni ñoom xamuñu sëñ bi xamuñu murit gi sëñ bi woote te it xamuñu màggal gi leen sëñ bi woon ndax benn buñ ci xamoon ci dana ba dana doy ñu bañ a jëfe noonu ndax moom dafa waxoon ni dafa waxoon ni moom walastu raadiyan ayra ilmi wa diini sëñ Tuubaa loolu la waxoon walastu raadiyan ayra ilmi wa diini moom gërëmu lu dul xam-xam ak diine sëñ Saaliw da kaa waxoon dafa ne woon lu dul diine aw ci defar aw ma ci jàkk loolu la waxoon sëñ Muntaxa daal koy firi dafa waxoon ni dafa wax ne moom biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis tal lu dul boroomam koo xamante ni nag tal lu dul boroomam mu wóola ci ak bisam ne na nga jàppale ko ci ak cant nga ñëw di ko jàppale ci cant di ko jàppale loo xamante ne neexul boroomam day mel ni jëmmi xel képp nanguwu ko kon loolu ñoo ngi soññ suñu bopp di ci soññ yëpp ñu bàyyi xel bànneex yu ndaw ndawaan yooyu nga xamante ni mën naa dox suñu digganteem ak cant ju màgg gi nga xamante ni comme ni ma ko waxee dañoo amul lu dul moom amuñu lu dul jëmmi màggal ndax sëñ bi li mu ci daj yëpp suñu jëm yeex mu nekk ko tey jii suñu woowee ci lii kon war nañoo amul ngor gu toll ni li mu bëggee ku ko màggale ni ñu màggale ko noonu kon bànneex yu ndaw ndawaan yii lu ci mel ni singal lu ci mel ni meesoog lu ci mel ni julli julli jot nga bañ kaa bàyyi xel wala di jëf di wane nit ñi yooyu yëpp nañ ko moytu ci jëm màggal gi te fexe yor lu leew jëmale ko jëmale ko ci màggal gi dafa fekk ni li ñu yéene suñu bopp rek lañu yéene ñëpp te muy bu bis ñu wuyoo sëñ bi ni ko sëñ bi bëggee sëñ bi ci boppam xam ni wuyu nañ ko ni mu ko ni mu ko bëggee suñu boroom gërëm ñu bu àllaaxira la sëñ bi amoon ca tukki ba ñu bokk ak moom loolu lañu bëggal suñu bopp loolu lañu bëggal mboole murid yi looloo tax ñu yëkkati kàddu yi ñuy wax di jeexale suñu kàddu ci loo xamante ni dana gën a mën a firi wax ji ndax sëñ bay jaxate daaw waxoon nañ ko ci palaato bi ñu doon def sëñ bay jaxate dafa tëdd taalibe bi di ko bës bi ko taalibe bi di bës ba lu yàgg mu mu dawale yaram bi ndeke bi mu dawalee yaram bi tàbb moom moo fa nekk taalibe bi nag xam naa ci xëram jàpp ni sëñ mbay ak coono moo dajaloo foofu moom moo tax muy dawale yaram bi taalibe bi gën a bës sëñ bay gën a dawale yaram bi taalibe bi ci xërëm it moom it mu yal rek gën a bës far tàmba daal di toj sëñ bay daal di jug bi mu jigee toog rangoñ daal di génn ci bët yi mu ne nañ ko wal taalibe bi ba taalibe bi ñëw mu ne ko du taab bii toj moo waral sama moo waral rangoñ di génn sama bët yi demewul noonu waaye damay ragal baa du suñu digganteeg Sëñ Tuubaa nii la di sonn ci mbir fekk dara safu ko ca day mel ni loolu képp lañuy ñuy moytuloo suñu bopp te it loolu la yéene suñu bopp ba koy moytuloo suñu bopp loolu lañuy ñu yéene mbokk taale bi yëpp ba koy moytuloo ñëpp di ñaani bis bi yàlla nañ ci àgg ak jàmbaati xasida yi dañoo am lu dul màggal maanaam loolu moom day mel ni murid yëpp xam nañ ba day mel ni fi mu toll nii màggal gi moom wax ci ab murid yàq sag wala ndax ay noonu yàqin la ci murid di am mooy ay noonu mooy li ciy saf murid di mos nañ ko ba xam ko ñu toll nii murid yi moom jëmmi wax mandatu leen ci màggal gi ndax la ci la muy saf ñoom ñëpp xam nañ ko jamono ji ay noonu yàqin lañ ci am xaqul yàqin maa ngi jégal ci waaye xaqul yàqin lañ ci am jëmmi màggal gi murid yi xaqul yàqin lañ ci am kon ngalawaay bu ñu bàyyi bànneex yu ndaw ndawaan yii nga xam ne ay mbiru bakkan yu ndaw la nar war a dox suñu digganteeg màggal gu mag gi ak mbégte gu mag gi ak yiw gu mag gi ci nekk na ko ku nekk ci ñun moytu bu ko defee ñoo ngi ñaan yàlla nañu suñu borom nangul barke xasida yi yàlla na sëñ bi yëg ni wuyu nañu wooteem bi te def nañ ko ci na ci na mu bëggee bu ko defee doomu aadama nag naka jekk dafa matul looloo tax jëf gu mu jëf ak matadeem daa cay àndaale kon la cay ak juumte yàlla nañ ko suñu borom jéggal barke xasida yi barke wam taa xaadi Mustafa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu